salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen nuyu di leen ziar leen baalu xaq naan borom bi subhaanahu wa taala mu boole ñu jéggal tey incha allah dañu bëgg a jàng suñu programme mu aj bi li koy dars bu mu ci mujj muy tënk li nga xam ne moom lañ doon jàng ci aj bi yëpp muy tënk njàngat yi ci aji mag aj buñ ko doon tënk dañ koy tënk ci fukki tomb ba ci njëkk mooy armal waxoon nañ armal mooy lan mooy sol yére bu weex bi ñaareelu tomb bi mooy talbiya lan mooy talbiya mooy labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk inna alhamda wa nicmata laka wal mulk la sharika laka jàngoon nañ ko ñetteelu tomb bi mooy tawaaful qudum mooy tawaaf bu njëkk bi ñeenteelu tomb bi mooy dem fanaani minan juróomeelu tomb bi mooy taxawaayu arafat juróom benneel bi mooy fanaani musdalifa boo jógee arafat musdalifa ngay fanaani juróom ñaareel bi mooy sànni jamra bu njëkk mooy jamratu jamratul kubra juróom ñetteel bi mooy tawaaful ifaada mooy tawaaf bu ñaareelu tawaaf bi juróom ñeenteel bi mooy fanaani minan ak sànni ñetti jamra yi kon di nga sànni ña jam di nga dem sànni ci jamra ñaari yoon bu njëkk bi mooy jamratul kubra ñaari lu mooy al jamratu jamratu e, thalatha ba mooy juróom-ñeenteel fukkeel bi mooy tawaaful widaa kon tawaaf di nga ko def ñetti yoon bu njëkk mooy tawaaful qudum ñaareel bi mooy tawaaful ifada ñetteel bi mooy tawaaful widaa tawaaful qudum mooy tawaaf bu njëkk bi ñaareel bi mooy boo jugee menaan dellu si waat fa ñetteel bi nag wala bala ngay dem minan ñe eh, ñetteel bi mooy tawaaf yi nga xam ne mooy ci ngay tàggoo kaaba gi lii mooy li tënk programme mu aj ko defee ñu góorgóorlu ci bu baax topp ko incha allah yal na yàlla boole ñu nangu liñ ci jàng yëpp yal nañ ko dégg ku dégg yal nañ ko jëriñoo mbooleem kuy waaj pour dem yal na yàlla defal ko jàmm ak wér mu dem ak jàmm dellu seeg jàmm dem fa fekk fa jàmm te def aj boo xam ne xajjaan mabruuran lay doon ba damban maxfuuran aj bu yàlla nangu te yàlla jéggal ko mbooleem bakkaarim te mu dellu siwaat Sénégal fekk fi jàmm te mu doon ak yokkute ci wàllu yàllaam ci biir ak biti ak setu bakkaar ak rangulug wilaaya yal nañ ko yàlla defal defal ko mboolem jullit qul qawli hada wa astaghfirullah alazim li wa lakum wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh